moom laa lay jox mu ne boobu muy ëwwalu kaamil bu sëriñ tuubaa njëkk a bind gannaaw gi nag bindaan na yeneen Cerno Yaxya bi ma koy waxee daf ma ne ah baaba ma ne ko am ah, mu ne ma ah, ba may dem ci sëñ Touba duma ko ne de boobu am naa ñaar fukkat ak ñaar te booba ma peeyu yàlla yi Euh, fukk yi ak juróom benn ba mu yàgg mu ne ma sa maam ñaata pays la yàlla wax ne moom la wax ne moom la yàlla am mu ne ko ah, mu ne ma waxal rek ma ne ko 124000 pays la yonent bi wax ne moom la yàlla am mu ma boo boolee àddina ak àllaaxira benn la ci mu ne ma te ba may xam fukki pays yi ak juróom benn la cay dox te balaa ca yàlla di def dara diisoog man yaxyaa boobu fukkat ak juróom ñaar laa am 17 ans mu ne ma booba 17 ans laa mu ne ma keroog bi may njëkk a gis yonent bi yaqazatan mu toog ne ma loo bëgg yaxya fukki at ak juróom laa mu ne ma ci ci laa njëkk a tëjoog sëriñ Tuubaa man moom ak yàlla ci ni mu ne ma keroog la ma njëkk a wax ne yaxya mu ne ne ma ñii maa ngi la koy waxal diine ju set wecc ju sell ju raxul dara alaaji Malik la ko yàlla defal mu ne wax ko ñetti yoon ne ko dem màkk xefe xippi mbàkki tànjang la ko yàlla defal mu ne ko am leen nag xañ ko sa ndey xañ ko sa baay muy xolu jaam ni man la ko yàlla defal mu ne sëñ Tuubaa wax ko loolu mu ne ko moo ne Yaxya tijaan yi day ñoom a jaaxal mu ne ko mu ne ko ñoom de gëmuñ ne waliyu la moo ne Yaxya waliyu laa de lu tax tijaan yi mënuñoo gëm ne waliyu la mu ne ko dama doon ñeenti yonant moo ma sonal mu ne ko bu njëkk bi dana dama doon yonant yàlla Suleymaan moo tax alal yomb ma te ci samay sët lay feeñee ji amul tey juma 20 milliards fu mu am jéem leen mu ne ko beneen bi dama doon yonant yàlla Eesa moo tax faw ñu ne ma yàlla la moo ne duma yàlla nag mu ne ko beneen bi ma doon na yonti yàlla muhammad muy cër bu nëbbu ñi ko xam bariwul ku mel ni yow yaxyaa rek a ko xam mu ne ko beneen bi ma doon yonti yàlla Muusa moo tax coow li bari mu ne ko sama kër gii nag ñeenta fi ne kii yàllaay kese ko fi indi te bariwu fi kii riir mais fort mu ñëw kii xamut sax lu ko fi dëj kër gee neex rek mu toog mu ne ko moo ne Yaxya wàccoo naag ñépp mu ne ko te dégg naa sëñ Bass Abdou Khadir wax ko démb mu ne ko wàccoo naag ñépp mu ne ko ci naka Mbàkke mu ne ko wax naa ñu dégg bind naa ñu bàyyi fi jëf naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa bàyyi fi jëf naa ñu gis wàccoo naa ak ñoom nee na keroog lii la ma wax mu ne daal di ma ci tegal ne ma yaxya ma ne ko ma ne ko mbàkke mu ne moo ne yàlla ngi teg dina ak laaxira ci sama loxo bii te gisuma ci sama bopp mu ne ko ay demal ba weer wii di ñëw ñu waxtaan ma ak yow boobu ci am na yaxya ne ne par weer laa fa daan dem nee na li indi sabab bi maamam mooy taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu ba Serigne Touba nekkee gànnaar maamam nag taalibe Cheikh Saad bu la woon mu boole ko nag ak sëñ Touba ne ko boo demee senegal kër boo diggee ñuy diingat Ahmadou Mbakke mii yow bu ci bokk sas naa la sax weer wu dee demal nga siyaareel jël ma ko ci sama tur maamu Cerno Yaxya boobu nag mujj màggat mënatul dem di yebal Cerno Yaxya te nee na ba mu daan mën sax di dem moom la daan àndal mësul ànd ak doomam Cerno Yaxya moo ma nettali lii bés maa ngi koy nettali ci gàmmo Njaasaan laa jël si di kuntam keroog sëñ ummi cheikh ummi Mbakke bu sëñ fàlloo ngi toog sëñ Abdourahman Mbakke yal na ko yàlla yërëm bu sëñ fàlloo ngi toog juróomi doom doomi sëñ fàlloo ngi toog keroog ñoom ñépp a jooy ba daanu ci suuf Cerno Yaxya ne ne ba may dellu mu ne dama ñëw taxaw ne asalaamaaleykum mu ne taalibe yaa ngi toog duñ daan wax taalibe fere yi lañ daan wax ñu ngi toog ñu ne waaleykum salaam ma ne ana jàkka ji ndax boobu tisbaar paase na ndax yoon wi ni mu guddee nee na boobu fas la war nee na ma ñëw taalibe yi ne couleur bii moo goog ñu julli ba tëj jumaa ji muy laajte fu jumaa ji nekk ak fu jàkka ji nekk nee na maa ngi koy dégg waaye faalewu ma ne nee na ma taxaw rek sama xol bi métti nag ma ne bu fekkee sama maam mi ma yónni waliyu la sëñ Tuubaa mii mu ma yónni waliyu la fii ma taxaw laay taxaw na génn wax ma fu jumaa ji nekk nee na billaahi ay dara ma jékki-jékki dégg bunt yi naan téel téel téel ba mu ñëw ci peron bi jafandu ne ana yaxya li ma ne ko maa ngi mu ne wa anna al masajida lillaahi fala tad'u ma allahi ahada laggal jaar nii jàkka jàng fale nga jullite ñëw <laughs> loolu leerul nee na Cerno Yaxya nee na ma julli ba pare ñëw toog mu ne ma li ma ne ko ah, Mbàkke nañ ko bàyyi sax dama ma toll ca nit ñi dañuy dañ xamuñ lu xew ba pare bëgg a wax nañ bàyyi kër diine ji tout tranquille ñoom ay jàmm rek lañ seqoon xamlante lu baax di ko deflante di ko demlante waaye waaye ku ci mënul lii noppil bay tëju ci sam néeg xaj xas alaaji Malick sànni ko ci net bi tëju ci sa néeg xas sëñ Touba sànni ci net bi tëju ci sa néeg xas seen set sax bu sànni limaam maam limaamu laay sànni kooku affaire ragal la génnal wax ko ci biti daañ la wol ba nga nooy àllaaxira ma gudde waaye di nga dem àllaaxira te dara xewul nit ñi nañ bàyyi caaxaan Cerno Yaxya nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk mu toog nee ma ne ko Mbàkke mu ne ma li mu ne mu jékki-jékki ni bëri xool ci bibliothèque moobu am na kàggu yi fa mu ko teg nee na muy xool xool gisul mu ne li ko yéem nag bi mu nee bëri moom wóor na ko ne téere bi mu jël fa téere bi nekk bu dul kàttan yàlla sëñ bi mënu faa bu bopp mu ne dafa tëb ne ko cafit indi toog ne ko lii la doon wax nee na ñu waxtaan ci secret boobu secret bu doy waar ci xadaratul ilaahi nee ci xadara ba mu waxtaan ceeg moom ba yaramam tàng mu ne mu dal di dugal loxoom ci biir ron lal bi génnee benn super su tuuti teg génnee peñu suukar su tuuti teg jël satala si sotti ci super bi jël peñu suukar bi toj ci tuuti def ci super bi génnee as mbuus mbuus génnee ci mburu mu wow dóor ko nii ak loxoom mu toj mu tibb ci mburu mi def ci super bi tëj nee lu tolloog minute mu ubbi ko cepp ci ñetti baaraamam seex ne ko yaxyaa mu ne ko la beyka mu ne ko ah neexut de waay lew na doom ma acca añ baa ngi Cerno nee ma it ma def ca ñetti baaraam mu def ñetti baaraam ñu ubaat continuer waxtaan ba ko nee na yax Cerno yaxyaa ne ma ne ko waaw ñam yii nag mu ne te boobu am na pantere boo xam ne mu nga fees dell ak ñam yu bakkani nee nag ma ne ko mbàkkee ñam yi nag mu ne ko ah, ñam yooyu de ñim fi indi ñoo koy lekk waaye man mbàkkee de duma ci mos ñim fi indi nag danañ ko lekk ñi fi ñam indi daañu lekk ñam bi waaye man mbàkkee de duma ci mos waaw kon li ma ci bëgg a wax rek mooy mag ñi jaamu nañ yàlla ba am yàlla waaye ñun buñ jaamuwut yàlla nañ leen bàyyi tout tranquille ñu reposé wu ñoom sax ñu ngay reposé waaye ñun ñoo sonn ñun amuñu dépense amuñu xaalis wéruñu ñu ngeeg soxla yu du jeex te soo teewlu woon mag ñi sa soxla yépp faju waaye waaye jéemal loolu te bàyyi mag ñi kan moo mën a wax ba du tee Seydil Hadji Malick li mu war a am mu am ko ku ko mën ku ko mën ci Cheikh al Islam El Hadji Ibrahim ku ko mën ci maam borom Touba ku ko mën ku ko mën ku ko mën kenn mënu ko kon nag li ñépp moom na ko ñépp sàmm diine ji ñun ñépp a ko bokk na ko ñépp sàmm tarixa yi ne kenn ku nekk tarixa ba nga ne wegal fonkal ormaalal màggalal yëkkatil waaye bul daaneel ka ca des bul daaneel mukk ka ca des ndax boo lëg yàllaaxira di nga ko layeeg sa borom de ci àllaaxira nag yegg si na ba noppi waaw ku ko gëmul it li yóbbu mag ñi du ñu fi bàyyi te ñun dem nañ ba pare ku dund ñeent fukki at rek dee nga waxuma ak juróom fukk waxuma ak juróom benn fukk kon nag na ñu bëggante nañu soppante ngeen baal ma xàq nag yéen ñi ñaan si soxna xam naa ñamay xaar ca France it ñoom tey ñu dee waaw